y a eu en tout cas deux grosses surprises. Mhm. Euh, benn bi c'est la non-participation de Ousmane Sonko euh, beneen bi c'est l'éviction de de de Karim Wade lan moo ci sa sentiment. bon euh, ñun à passé bëgguñu di wax sax ci yeneen opposants yi vraiment affaire Karim Wade. conseil constitutionnel nee na mënul bokk parce que xëy na la mu waxoon ca déclaration sur l'honneur bi ak date bi ñu def kii bi euh, amul adéquation mais vraiment man j'ai pas vraiment de commentaire mais daal ñun dañoo gëm ne une démocratie képp ku bëgg a nekk candidat war nga mën a nekk candidat personnellement ñun man loolu laa gëm te Pastef loolu lañ gëm c'est-à-dire l'inclusivité. Mais, mais, mais c'est une injustice, c'est une forfaiture, comme le dit le PDS, ou le droit trop, a été dit Le droit a été dit, je ne sais pas, sincèrement, par rapport à Karim euh, mais man, je vais donner un avis nag boo xam ne c'est un avis personnel. Mm-hmm. man lu ma gëm mooy que ne si quelqu'un acquiert une nationalité de par son père sénégalais. de euh, excusez de par sa sa maire qui française loolu waru ko mën a empêcher mu nekk candidat à une élection présidentielle waaye dama ci teg waaye condition yi ñu teg pour être président du Sénégal dafa am benn condition il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise moo tax mënuma cee sori loolu moo tax mënuma cee sori. condition il faut maintenir il faut réformer. loolu on euh, verra après parce que bu ñu jógee ci 2024 bii en tout cas bu yàlla tegee nguur gi ci suñuy loxo incha allah on fera les réformes nécessaires le moment venu mais bu ñu koy def aussi ce sera en concertation avec toutes les parties prenantes la classe politique sénégalaise la société civile je peux dire l'ensemble du peuple sénégalais du nekk loo xam ne genre dictat lay nekk. liy am nga xam ne nii un régime day nekk en place pour qui ne regarde que ses propres intérêts di def ay manigances politiques loolu dañoo bëgg mu jeex Sénégal. ñun on veut une nouvelle façon de faire la politique. yéen a ngi yéen a ngi wax mel ni ku ñu déey yéen a ngi wax mel ni dañ leen déey ne euh, nu mu tudd dépouillement bi pare na vous êtes à quatre pour cent. Maïmouna. fii ak élection bi li ci des nous sommes très humbles. fii bi li ci des bari na. Maymuna campagne bi ñëwagul. Maymuna te da ngeen ko sikk ak ñoo xam ne. ñoo leen ëpp expérience politique. ñoo leen gën a xam fu. ëpp leen parcours. te nag boor bële. Maymuna tu bële. élection yi fi am 12 yi yëpp ci législative yi tutoyé ngeen leen. ci local yi ci gañewu leen ma ne gañewu leen gañewu leen ci tutoyé ngeen leen waaye ils sont majoritaires dañ leen a gagné noo leen gagné kan ñen ñoo majoritaire noo leen gagné nga ne ñen ñoo majoritaire ils vous ont devancé en termes de voix non non si non non non ils ont eu plus de députés dëgg ma xam noo leen amee plus de voix non on a eu plus de voix boo defee cumul bi nan on léegi yow ban ci ban cumul nga basé wu pour dire que vous avez eu. plus de voix de voix ci élection yi passé moo ëpp. déedéet Benno se retrouve à un million cinq cent mille voix. waaw opposition la. l'opposition un million. a si Yewwi un mille vous êtes à un million. Benno n'a pas cinquante pour cent de l'électorat xam naa li ma la wax may Maïmouna. Benno est à quarante-neuf pour cent. ah bon kay amul majorité. Ah? bon kay du ma la joué quarante-neuf pour cent mooy lan. non du sauf que yéen da ngeen bëgg ne Yewwi. ak PDS alors que demeewul leen élection ba ak mouvance boobu. mais c'était une coalition Yewwi ak ma ne euh, ak ak Wallu. ma ne intercoalition la woon. ma ne Maïmouna da ngeen bëgg a additionner toutes les voix de. yow yaa ngi wax 40 49 pour cent. benn na même pas 49 da ngeen bëgg a additionner toutes les voix de l'opposition da ngeen bëgg a additionner toutes les voix de l'opposition. mais mais loolu ngeen ne yéen yéen ëppale de manière arithmétique Benno vous a devancé. non non non en termes de voix Benno ne nous a pas mais loolu c'est pas important. ah actuellement la ñuy wax nous sommes en 2024 le contexte est 2024. Benno est minoritaire au Sénégal. mais lan mooy sa baromètre. mais <laughs> Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañ. waaw Maïmouna. mbaa du l'écho des grandes villes ah, grande moi je suis un rural maa ngi dëkk fii Sénégal. ma ne Fouta Fouta kenn xamu leen fa. non moo tax xamu li nga wax. <laughs> dans le sud et le Saloum. parce que waaw dëgg lu mu wax la lu mu wax la. parce que dans le centre idem. Pastef c'est l'un des rares partis au Sénégal présent dans les 557 communes man mii di wax ak yow Fissel laa dëkk Fissel Mbadane je suis coordonnateur de section communale je fais les j'ai fait les 28 villages de la commune de Fissel su ma la waxee ne la la tendance s'est inversée gëm ma. ci sentiment non du sentiment ak ci wax. non du sentiment résultat da ko wane. ci sentiment ak ci wax. résultat daf ko wane progression yi depuis 2019. ba 2022 daf ko wane 2022 en 2019 Ficelle maa ngi nuyu maa ngi ciy profité pour nuyu mes parents de Ficelle bu ñu demoon ah ci àll bi di def campagne ci village. xam nga sagar. bu baax. ah. bu ñu demoon ci village yi di def campagne question bi ma gënoon a man laa wax de en 2019 mooy kan mooy Ousmane Sonko. ñu continuer di def un travail di liggéey di liggéey élection locale yi ñëw benn Bokk Yaakaar a perdu mais nous n'avons pas gagné foofu commune ba mais Fissel le village de Fissel on l'a gagné depuis ñu ñëw élection législative élection législative on a eu pour cent à Fissel dans la commune Fissel village Fissel on a eu 60 pour cent donc il y a eu une progression en fait de l'électorat de Pastef en milieu rural